بعد روض أقبله مذكرا أسوة الأخيار mbokki Sénégal la woon fa woon ci ndigalu Cheikh Mouhidine alfa sàmba Diallo di xalif bu maam Hama Diallo bu Sëñ Bambara waa daayiratul baladil amin bu université bu Ndakaaru feggoo ak daayira almaqaamul mahmoud ñoo mbégte di leen yëgal conférence bu ñuy def at mu jot ren di juróom-benneel bi ñu koy defee fii ci université bu Ndakaaru UCAD 2 ñu jàpp ko samedi yem fukki fan ak ñett ci weeru juillet bu ñetti waxtu jotee ci ngoon ginnaaw tisbaar ñu alxuraan parrain bi di Bakary 2 kay def conférence ba nag di boroom xam-xam bu ràññeeku ci biir Sénégal Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo programme bi nii lay tëddee bu ñu xëyee ci juróom-ñeenti waxtu dinañ jàng kaamil ñaanal Sénégal ñaanal mboolem jullit ñi bu mi di jotee ñu benneel gan ñi bu ñaari waxtu jotee ginnaaw tisbaar ñu tàmbali jotaay bi bu ñetti waxtu jotee nag conférence bi tàmbali ngir ay tegtal yu gën a yaatu jokkoo leen ak 77 744 87 95 ولا 77 419 78 87 كون بس بانغوك دي كونفرنس انيال بو دائرة البلد الامين بو انيفرسيتي بو داكارو غو اك دائرة المقام المحمود كان لا سامدي يموك فوكي فان اك نيت تيوير جولي بو نيت وقت جوتي تي اكاد دي تي انيفرسيتي بو داكارو نكو نيب تيوي اوتو الجيوب زمان الجد والمحب